ñu dikkaat ak yeen ci suñu émission Al munawir fasiyene jangale nak tay suñu jàngub tay bi moy savoir vivre nit ki nan lay def ba am savoir vivre mang ko teunk nak ci ñet muy set sel ak civilisé set yaram mo koy def euh, sel roh mo koy def manam am civilisé nak comportement la euh, ñu ñew ci set set ci sa bop balangi ngay diglé sangu na fekk nga set lool la olof wax set nak bi ci ñëk moy bëpp xet bo xamné mën naa ci yow di lor nit ñi nga bayyi ci xel di contrôler sa yaram bu baax bo xeyé bala ngay lek nga galaxndiku bo lekkee bo nopp bo nopi nga boroosu wala nga soccu bo noppee nga dal dem sangu bo sangu bo noppee nga xol parfum bu neex nga ko bo sa kër bo ñëwé nga raxas loxo kawar yi sax ci yow bu ci am 40 jours boo ko mënee wat nga wat ko rawatina kawaru poqataan ak naq euh, koo xam ne mënul sangu ndax lan benn fa mu nekk dafa ndox dafa jafe wala mu yàkkamtee xëy walla fa mu nekk sedd ndax moom dafa ragal seddaay loo yàkkamti yàkkamti na nga raxas sa partie intime bi te nga xëy ñoo parfum waaye nag boo mënee sangu moo gën tamit saa yoo ñaqee na nga xëppoo ndox au moins saa yoo lekkee dara tamit boo mënul boroosu na nga gàllaxndiku euh, bul sol yére tamit lu ëpp juróomi fan tubéy yi intime bu mu am ak yow lu passé vingt quatre heures jour boo defee euh, euh, bu mu am ak yow vingt quatre heures boo defee ay ay tamit dee ko raxas bu baax di ko toppatoo di ko ay shampoing ak yi parfum yu neex diko bañ di bayyi muy am xet CV bo bo bu 40 jours nga dag ko bo amé ay moustache aussi nga koy jekal bu baax ndax am ay moustache bayyi ko muy déborder man na ñak am na ño xamné seen mustas moustache dañ koy bayyi mu déborder bu ñuy lek bay ñu naan mu tak rep wala ñu ñandu mu dess ca lolu nak bokut ci ak set lolu ak salté rek la say tànk de ko jonju bul ko bayyi muy xar am na xamne seeni xar-xari bo boo soti won bari gum ndox du tax mu jeex ba nga duwol fa ko xeer du tax mu fess lolou nak doxul nit da nga wara fonk sa nit da nga wara am hygiene de vie da ngay moytu yenn produits chimiques yi nga xamne man na andi mauvaise odeur ci sa yaram ak di lek lu setul ak lu selul. li ngay lek dafa wara set sel ndax nit ki li muy lekk dafay feeñ ci ay pooram euh, nit ki daal ñeenti yi mënul ñàkk set li ngay lekk li ngay naan li ngay sol ak sa yaram tamit boo demee doos boo gaana waaye mooy boo sawee ba pare nga xaar ba lépp génn loo yàkkamti yàkkamti xaaral ba lépp génn nga siwu doog a dem euh, bu ko defee nga daal di raxasu siwu toiletu ba set boo demee duus tamit balaa ngay dem duus na nga raxas say loxo ndax say loxo mën naa am ay microbe ta bo ci laaboo man la andil ay jafe-jafe mana na infecté kon raxasal say loxo ba pare nga soga a euh, bo boo noppee nag nga daal raxasat say loxo ak sabu aha kon euh, di tour ndox yakamti di saudi yakamti ba lepp gennul nga bayiko ko fa dem euh, fay waral sax mbugalum bàmmeel kon lolu nañ ko daldi baye xel bu baax kon boy turun ndox na nga jël sa temps bu baax ba lepp set nga daldi siwu daldi dem dem Euh, bu ko defee nga daal di dem ci sa yite euh, boo demee toilette na nga raxas say loxo ba set comme ni ma ko waxoon léegi euh, nga raxas ko ak saabu moo noppee nga daal di ut musuwaar fomp ba set nga bañ a sol sa yére ci tooyaay loolu mën na indi xeet ci sa yaram tamit nga wut yére spécial booy fanaanoo bul fanaanoo yére bi nga war a xëy sol même dara wala wala daraa bi ngay fanaanoo bu mbokk ak bi ngay xëy yendoo foto lu tamit del yor musuar pour bo beugé ñandu wala euh nga man ko ci def bul ñandu ci say loxo wala ngay fompu ci say yere kon lolu nañ koy bayyi xel bu baax bo sango ba génn tamit nga ut euh, serviette nga fompu ba set nga soogo sol yere lepp loy lek na nga ko raxas te bala ngay lek na nga bul ñandu ci musuwaar ba pare téye ko ci sa loxo wala ngay dugal wala nga koy dugal ci sa poose loolu bokkul ci civilisé booy togg dara tamit nga sol ay gants wala nga teg dara ci sa bopp waaye bu bu ko bàyyi noonu di toggu la ngay togg sa kawar di ca dugg loolu bokkul ci ak set euh, bu ko defee tamit li ngay togg bul bul di togg di wax di tiim li ngay togg bana na ñoo xam ne bu ñuy togg ña nga yor seen téléphone di ratatati la ñuy wax lépp di dem ci biir togg bi te loolu mën naa ñàkk koon booy togg bul nekk di wax di bari wax ci li ngay togg di ko tiim wala ngay ñam ba pare di ca delloo loolu bokkut ci ak civilisé am na ñoo xam ne tamit fu ñu waree lekk dara benn raxasu la jël teg ko ku ñëw raxasu bàyyi fa ay micro génne loxoom keneen ñëw jël micro yi fa waaj a bàyyi bàyyiwaat fa yeneen micro loolu bokkut ci civilisé bàyyiwaat waat fa yeneen micro bu ko defee loolu bokkut ci civilisé kon boo ñëwee dangay ut ndox daal di dëkk ñuy sotti la bu ko defee microbe yëpp daal di jàll keneen bu ñëwee ñi dëkkal ko mu daal di def lu mel noonu noonu moo gën di teg paan ñëpp ñëw di raxasu ku ñëw bàyyi fa microbe jëlaale ay microbe yóbbu loolu bokkut ci ak civilisé nañ koy daal di xel nañ koy daal di bàyyi xel bu baax a baax aha booy soccu bu fekkee da ngay soccu na nga taxaw benn place loo socc nga yàbbi ko waaye bul def di soccu di wan li ngay soccu loolu bokut ci ak set bul jël say loxo tamit di ko dugal ci sa bakkan di dinde ay salté di dinde ay ñooxit lu ne nga def ko loolu bokut ci euh, civilisé euh, wutal musuwaar baga bëggee ñandu ba nga bëgg dindi salté yi sa bakkan nga def ko ai di jul sa loxo di loxatu lu ne nga def ko loolu mom ak salté kese aha ak di xaaxandiku ne ba ne tëfli rek mo ci des nga daal koy wann loolu salté mënu ko gën mënu ko passé sam néeg bo yewo na nga ubbi fenêtre yeeg buntu bi mo euh, aéré ta nga balé ko bo mo set nga tal fa ciuray wala nga pompe fa parfum bu neex euh, bu ko defé lolu bokuna ci ak set bu baax tamit ngay baña a ba feebar xew rek ngay soko commencé di set bu ko ci ak set nal da ngay set bala dara di xew di raxas say loxo ak yu ni mel lolu don nañ koy bàyyi xel bu baax bul bàyyi xel nag ba feebar euh, ba feebar xew rek ngay soog a commencé di di di di set déer da ngay set avant tout loolu nga bay ko xel bu baax euh, booy génn sa kër ngay xool sa bopp bu baax ndax dara taqul sa yére wala euh, dara xotteeku ci yow wala yu ni mel mais contrôler sa bopp bu baax balaa ngay génn ndax nit ñi moom dañoo mën a seetlu te am na ci ñoo xam ne lu ne mën nañ la ko xoolee kon loolu Euh, ñu bàyyi ko xel bu baax ñu ñëw nag ci sell sell roox moo koy def roox maanaam am roox nag doo ko làmb daj ko doo ko xool gis ko waaye am na ku koy représenté ci yaram bi kooku mooy xool bi am na ay maladie yoo xam ne feebaru xool la bu nekkee ci xool su boobaa xool bi du mën a sell dina woon nag médecin ak ay comprimé ndax ñaari médecin moo am médecin bi faj sa yaram ak médecin bi faj sa roox kooku mooy guide spirituel ana lan mooy tax xol du sell loolu ay maladie la yoo xam ne bu taasee ci xol dafay affiché wu ci ak roox bokk na ci maladie yooyu rëy ngistal fen jëw rambaaj naw say jëf yëg sa bopp njaaloo naan sàngara iñaan xool lu xaraam sàcc lekk gu bari ak lekk lu xaraam nelaw lu bari ak wax ju bari te amul njariñ tuumaal nit ak yàq deru nit foo et cetera yii ay maladie la yoo xam ne bu nekkee ci xool bu taasee ci xool dafay affiché wu ci roo tasoo bu baax roogi du mën a sell lan mooy solution bi am na ay comprimé comprimé yooyu mooy lan bi ci njëkk mooy jàng alquranul karim dikrullah salaatu ala nabi naafila guddi julli juróom saraxe noppi ci loo xamul euh, say nopp bul ci diglu loo woote diglu say beut bul ci xol lo warta xol say tank bu ci dox jëm ci lo warta jëm sa gimiñ bu ci lek lo warta lek sa làmmiñ bu ci tuddu lo warta tuddu sa xel bu ci xalaat lo warta xalaat say awra bul ci moy yalla ta ngay méditer ci yalla sa su nek ndax bo xolé dara bët yi daf ko jox xel xel xalaat ko rafetalal ko xol ta xol moy buru cër dar koy jëflo cër bu ko jëfé nak mo nek ay tas yu bon ci xol bi ba pare daal di affiché wu ci ruux gi su boobaa loolu may waral ruux du sell te ruux bu sellul du mën a communiquer ak boroomam euh, ruux bu bu communiqué wul ak boroomam rek suboobaa euh, loolu day daal di xaw a doy waar bu ko defee nag ñu daal di moytu euh, jataay yu texee di lu mel ne dem boîte ak lépp moom football bëre ak yu ni mel wajtani boobu ma jël sa saqaawa Euh, kon nit ki war nay xool bakkanam la muy bëgg ci bànneex moo ko koy xañ la muy bañ ci ak jaamu yàlla moo ko koy teg ndax loolu mooy mën a setal ak ruuxam xol nag bu tilimee ruux du mën a sell su boobaa xool bi du mën a bëgg boroomam te du mën a diglu sax lu jëm ci ay waaraate kon daal boo bëggee sag ruux sell euh, na nga setal ki représenté sag ruux ci yow te mooy xool bi loolu nag na koy defee mooy bul tooñ bul fayu bul jëw bul rambaaj bul sàcc bul njaaloo bul rëy bul ngistal bul iñaan bul naw say jëf bul naw sa bopp bul yëg sa bopp bul lekk-lekk gu bari bul naan lu bari bul nelaw lu bari bul wax lu bari bul tux bul naan te ngay veeye guddi bi yëpp di jaamu yàlla moytu lépp luy xeetu bidaa bul déglu misik bul jëw euh, nangay ngay wéet di xalaat yàlla di tuub di jooy ndax say bakkaar di def fikru ak dikru euh, mooy xalaat yàlla ak tudd yàlla ndax bakkaar day dina yóbbu nit àjjana ndax bakkaar bi nga def di ko tuubal di ko rëccu mën na laa yóbbu àjjana waaye jëf dina yóbbu jëf ju baax dina yóbbu nit sawara ndax jëf ji nga jëf ah, di ko naw di ko yëkkati jëf jooju mën na laa yóbbu sawara ak donte lu baax la kon daal ci gàttal yii bokk na ci liy tax roox du sell ñu ñëw nag ci civilisé te mooy comportement bi ci njëkk mooy bul lekk sànni ci mbedd bul saw ci mbedd bul tuur mbalit ci mbedd wala ndox ci mbedd ñëw ci kër jàmbur tamit te yëgluwoo mbaa dugg ci néegu jàmbur te fëggoo loolu bokkut ci civilisé alquran nee na yaa ayuha alladina amanu laa tadxulu buyootan xayra buyootikum xaata tastanisu wa tusallimu ala ahliha nee na bu leen dem ci kër jàmbur mukk lu dul da ngeen a yëglu ba ngeen yëgloo ba jox leen autorisation nag bu ngeen ñëwee wa tusallimu ala ahliha ngeen daal di fëgg wax asalaamaaleykum loolu moo gën a civilisé bokk na ci civilisé tamit boo rombee ay nit nga nuyu leen bul xaar ku la nuyu ndax nit ñi dañoo xamoon li nekk ci njariñu nuyoo ndax nuyoo moom njëkk nuyoo moom sunna la waaye delloo nuyoo nag farata la te nuyoo bu doon toyaaba ji bu doon téeméer yow mi njëkk a nuyoo 99 yëpp juróom-ñeent fukki juróom-ñeent yëpp ci toyaaba yow yaa ko moom. kala fay nuyoo benn rek la ci am te bu la fayul am bakkaar ndax delloo nuyoo farata la njëkk a nuyoo mooy sunna am na ñoo xam ne nag rëy nañ lool ba ñu romb dañuy xaar yow nga njëkk leen nuyu boo rombee ay xay ay xale nuyu leen koo romb xamoo ko nuyu ko ñaanal ko jàmm loolu mooy ak civilisé waaye bul xaar nit ki nuyu la wala ngay romb nit ñi ñàkkal leen yitte te doo leen nuyu loolu baaxul nit ki boo ko xamee boo ko xamul boo ko rombee nuyu ko nuyoo dafa baax te ab julit day nuyoo ñaanal moroomu tam jàmm kon loolu euh, bokk na ci civilisé euh, bula nit owee téléphone li fee coupé yow bul coupé am na ñoo xam ne nag bu nit oowee téléphone li euh, bala muy pare rek ñu raccroché ko ñu raccroché ko au loolu nag bokkul ci civilisé booy oo nit tamit di ko oo bul ko yuuxu na nga dem ba àgg ca moom ba ci ay noppam nga sëgg wax ko la nga koy wax waaye taxaw fa la di yuuxu nit ki loolu moom bokkul ci civilisé. bouteille bu ñëpp di naane bul ko jël di ko jolu yow kese bu fekkee ñëpp a ciy naan na nga ut kaas nga xellit teg fa bàyyi fa waaye bu ko jël di ko jolu loolu boo ko civilisé fausse rendez-vous lu sénégalais yi tàmm la te loolu nit ku civilisé du ko def ko amee mal éducation rek moom moo koy def euh, te sénégalais moom li mu gën a tàmm da nga koy jox rendez mu fausse la ba pare du la woo téléphone wala mu bàyyi ba heure ba passé mu ne la ma ko fàtte woon wala mu bàyyi ba heure ba passé mu soog yow loolu nag lu mat a bàyyi xel la bokkut ci civilisé aha diggee doo def wax nit ba pare war ko bokkut ci civilisé bokkut ci civilisé tamit ay nit di waxtaan nga leen di diglu tamit bu fekkee danga am ay da am xew say rajo sa rajo na nga ko wàññi bañ a déranger say dëkkaloo loolu moo gën a civilisé boo fekkee ay nit sukk ci ndab tamit di waaj lekk ba raxasu ba pare bul joxe loxo bo ñewé waxal alaykum rek nga dal di sukk loolu mo gëna civilisé bokk na ci civilisé tamit bo lekkee ci ndab ba nga naan ci kaas lo xamné ne ko bokku na nga ko raxas amna ñu baadu la ñoo bu ñu naané ci kaas ba ñu ci ndab ba paré fa lañ koy dem seen yoon loolu mom mal éducation loolu nañ koy bay xel bu baax lepp lo xamné dafa am ñoko bokal bul ci woné ak mbaadoo euh, bul tifli ci digg mbedd boo bëggee tifli demal ba ci ba ca sa miir ba nga tifli fa ndax boo tiflee ci digg mbedd bi amaana kenn ñëw jóg ci tifli ci su boobaa bakkar bi yaa koy gàddu kon loolu bokkul ci civilisé boo bëggee tifli kon nga dem ba ca miir ba boo demee tamit kër jàmbur bul wëndeel say bët lu nga bëgg koo xool wala fu nga bëgg faa dugg wala ngay commandé lu impossible loolu bokkul ci civilisé aussi bul xool message su jàmbur mo xam sa téléphone soxna la wala soxna sa téléphone borom këram lolu bokku ci civilisé am na xamné euh ne sax bo len joxé sa téléphone di len won ben photo da ngay gis ñak ku ñak civilisé ak ñak gu ñak xam adina ben photo ba nga won wan duñ ci yam dañuy dal di défilé commencer di xol photo yépp te xamuñu ndax yow mi leen koy won sa téléphone am na leneen loo bëggul ñi gis ko wala déet kon nit da ngay am xel ta civilisé ta xol message su jàmbur moo dugal sa loxo ci poste jambour ñoyam kon loolu nañ koy bàyyi xel bu baax bul def tamit koo gis wax ko sa vie privée bokkul ci civilisé dinaay faral di wax ne euh, say secret bul ko wax sa xarit bu bees ndax trahison du wees kon loolu bokkul ci civilisé heure lekk tamit bul ko dem kër jàmbur am na ñoo xam ne bu bool bi tegu rek ñu dal di fëgg bunt bi te am na ci ñoo xam ne peut-être duñ la sóoraale amaana sax léegi Sénégal yi seen esprit dépassé na loolu danañ soor bay sóoraale lu ëpp waaye la mooy nit ki moom bu la sóoraalewul bul dem kër jàmbur ci yenn heure yi nga xam ne heure lekk la li fekk invité wu la loolu nañ ko bàyyi xel bokkut ci civilisé bokk na ci civilisé tamit ku la mag nga respecté ko ko mag nga yërëm ko bokk na ci civilisé bul nelaw euh, ci biir nit ñoo xam ne ñoom nelawuñ ndax mën nga faa def loo xam ne après ñoom ñi la koy xoole te yow doo ko yëg euh, loolu tamit ñu bàyyi ko xel bu baax bokk na ci civilisé tamit nit moom bu ngelawalee euh, nga bañ koo reetaan ndax am na ñu baadoo ñoo xam ne bu nit rëccilee ba ngelawal rek ñu commencé di xaqataay ak a reetaan amuñ sutura amuñ fayda euh, te loolu moom mook saqat rek ak tis li ñooyam ndax nit la yàlla bind noonu waxul xel insaanu daifan doomu aadama moo matadi moo doyadi euh, waaye tamit ku ko man ku ko man tamit nga bañ koo def ci biir nit te tey ko aussi boo demee toilette ba pare nga sotti fa ndox am na ñoo xam ne bu ñu demee douche noonu lañ koy bàyyi dem seen yoon salte rek moo leen jàpp loolu moom bokkul ci civilisé am na ñoo xam ne tamit bu ñu yoree ab xaj wala fas wala yu mel bu demee toilette ci mbedd mi fa lañ koy bàyyi dem seen yoon bu ko defee nit ñi daal di fa romb di fa joggi ngay lor doomu aadama yi rawatina ñi nga xam ne seen i bët baaxul guddi bu ñuy dox di ca joggi bu ñuy ñëwee am ay problème loolu ñu koy bàyyi xel bu baax a baax bul seeti nit tamit wala ngay oo nit téléphone ci heure u noppalu yi mooy lu mel ne heure u yi loolu bokkul ci civilisé hmm. wala sax ngay oo nit téléphone wax say soxla ba pare téye ko ci ligne bi da wax lu ñor ak lu ñorut te xamoo ndax moom am na ay yitte yu mu war a dem defee wala déet ah, lu mel ne escalier escalator yi Europe la gën a bare day am ñaari voie yéeg ak wàcc bu ci nekk rek yéeg bi day am deux voies wàcc bi day am deux waaye bu ci nekk boo ca taxawee yow bul taxaw ci digg bi ndax am na koo xam ne day taxaw ngir bëgg escalier bi yóbbu ko ba mu àgg waaye am na koo xam ne day yàkkamti kon su boobaa bokk na ci civilisé boo yéegee rek nga daal di wetu demee côté may ñi bëgg jàll ci kaw ñu mën a daal di jàll loolu moo gën a civilisé bus yi tamit seetlu naa dafay bari ay buruxloo bis bu du taxaw ñi wàcc sax duñu wàcc gun ñii yéeg commencé di njëkkante loolu jikko ju ñaaw la bokkul ci civilisé da ngay bàyyi ba oto bi taxaw ñi wàcc wàcc yéen ñi yéeg ngeen yéeg ndànk ànd ak dal ak euh, euh, civilisé euh, gis naa ne tamit fo ay am da gis xuloo dafay bari na sax ñoo xam ne ñëw di jaay sañ-sañ dal di dagg bi loolu bokkul ci civilisé am na tamit lu mel ne lu mel ne tamit euh, booy jéggi tali nga dem ba ci passage piéton bi nga jégee fa waaye fii moom Sénégal am na ñoo xam ne ci diggu autoroute la ñuy jégee euh, bàyyi pont yi ñu war a jégee fële te loolu danger bu rëy la ndax sa bakkan xaj na ci loolu bokkul ci civilisé tamit policier yi buy taxaw ci digg tali war a wane yoon war a wane yenn war a wane exemple nit ñi war ci war a roy ci moom muy nangu ku koy ger loolu rafetul te bokkul ci civilisé médecin bu war a am yërmande ci malaat bi ba pare di ko yuuxu di ko gëdd loolu bokkul ci civilisé médecin danga nga war a am aussi am na ñoo xam ne dañuy am ay cant di tëgg ba wi xamuñ ndax am na ko feebar ci koñ bi sóoraale wuñ ñi war a xëy dem liggéey loolu moom lu ñaaw la te bokkul ci civilisé koy moytu bu baax. boo dee def ay say cant maa ngi def say jàng benn heure yi nga war ko mën a arrêté sóoraale ñi feebar ak ñi war a xëy dem liggéeyi loolu moo gën a civilisé. tamit am xew baas ci digg tali bi ñi war a dem yëpp nga baare leen créer fa circulation oto yëpp di teggi loolu rafetul am na ci ñoo xam ne sax duñu am autorisation mel ne ku moom dëkk bi loolu tamit ñu bàyyi ko xel bu baax na ñuy moytu tamit lekk mbedd yi tamit boo dëkkee ak nit nga dëkk premier étage na ngay bàyyi xel ñi nekk ci suuf bul nekk di dëbb wala ngay nekk di daw di def ay bruit ci kaw te doo sóoraale ñi ñi nekk ci suuf loolu bokkul ci civilisé nek ci bir ay nit di waxtaan ak ñom di len enregistrer voilà def ko euh, def ko main libre euh, ba paré tok ay tok ak ay nit nit di la wo nga def ko main libre wala ngay enregistrer ay appelam ak i euh lolu mom bokku ci civilisé nit ko koy def ñak civilisé rek mom mokoy mom mokoy wala. waral nga am gan aussi wara a waxtaan ak mom wara tok ak mom ba pare nga sëgg sa téléphone occupé wu ci sa téléphone loolu bokku ci civilisé nek hôpital ay malade tëdd fa sonu lool nga war leena a toppatoo sax ngay ku fa ñew di si malade nek fa di def ay bruit wala ngay lang waxtaan loolu bokul ci civilisé te loolu rafetul bo rombé nit ci mbéd tamit que ça soit n'importe euh, quel endroit nga laaj ko dara mu wax la au moins ne ko jërëjëf wala nga ne ko merci mo gëna rafet te mo gëna civilisé amna na xamne tamit bo len mayé dara ñu tagg la bo leen xagne ñu xass la lolu nak bokku ci civilisé motax bari na ay ñaan kat yo xamné euh ay tagg kat ñu xamné dañuy tagg nit ñi nit ñi dañ leena ragal seen alal yañ leen jox lewul ndax daganul ndax ragal seen làmmiñ rek moko waral té nit lepp lu mu la may ci luddul dul ba kanam la kon lolu nañ koy bayyi xel bu baax nga nek jigen bu ëmb tamit fo tok di mbacci mbacci di tifli euh, ak donté sax lolu rafetul wutal musuwaar sa yo beugé tifli nga daldi di euh di politique di saganté di waxanté wax ju ñaaw euh, man nga politique nga wax sa soxla wax luy jëriñ réew mi ta baña euh, wax dara nit lu ñaaw baña yaq yàq baña saganté lolu mo gëna rafet ta lolu mo gëna civiliser borom auto yi tamit nañuy moytu di jaaré fu leen di neex wala ngay taxaw ci digitali bi eh, di jël ay client te ko la wax nga saga wala yëpp ay nit mel na kuy yépp ay xar euh, di dawee nu la neex wala ngay tourner ci digitali loolu bokkul ci civilisé di lekk di wax wala ngay lekk di daggal euh, nit ñi te xamoo ndax ñi ngay daggal bëgg nañ nga daggal leen wala déet loolu bokkul ci civilisé te am na ñoo xam ne euh, xamuñu sax lekkin bu ñuy lekk seen i baaraam yëpp la dugal seen biir gémmiñ yi buñ buñ ko génnee nag bëgg ñëw nag daggal la loolu moom dafa rafetul te civilisé wul loolu moom. nañ koy dal di bàyyi xel bu baax baax wala ngay lekk di tour, li ngay lekk loolu rafetul bo ëbbalee na nga tëj sa gimiñ tayit boy saqat wala ngay tisli na nga tourner nalé waye bul saqat di jakalum nit ki wala ngay tisli di jakalum nit ki loolu rafetul na nga tourner nalé le mom ci benen côté kon li lañu andi lon ci euh, savoir vivre ci nit ki naka la war muy set sel ak civiliser di len jox dig dajé ci benen émission euh, euh, di euh julit yépp ak monde yépp di ñaan ñépp jamm ak jéggelu suñu borom ak yermandem di sante kilifa kër gi muy sëriñ euh, di sante wa Dakar ak yépp di sante sëriñ selambay mom mi nga xamné lépp luñ am fi rek ci ak yatom la amé di ñaanal ñépp jamm di ñaan suñu borom defal ñu jéggel ak yermandé ak mujj gu rafet ci dara yaronte sallallahu alaihi wasallam